seetlu bi ñu seetlu nii ci at yi ak fan yi weesu bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy seetlu ci li nga xam ne ñun moom mooy suñu xëy muy wàllu pharmacie lu yàggul dara gis nañ fi la ñuy wooyee l'affaire Touba Belel trafic de médicaments avec un bandit récidiviste am grâce présidentielle ñu woote marche pour dénoncer ko président woote dañ dina taxaw ci problème bi mais lu ñu seetli mooy ba ci tey ba ci démb amul lenn luñ gis loo xam ne teg nañ ko comme jéego boo xam ne dañ koy rafetlu ci profession pharmaceutique bi ñu toogaat lu yàggul dara fi ci pharmacie Guyon ñoom suñu ñaari nawle ñoo xam ne ay collègues pharmaciens ci wàllu damay julli ak duma julli ñu dàq leen te kenn fayu leen seen i droit wala ko ñoo xam ne yàgg nañ ci pharmacie bi doon ay borom kër yore seen liggéey comme ni mu waree ñu xëy rek daal leen di dàq ci ay anam yoo xam ne kenn rafetlu wu ko ñu toog démb ci guddi pharmacie Fadilou Mbacké ci Padoua suñu benn collègue di docteur Cheikhouna Guèye bi fay liggéeyee client ñëw taxaw ci kanamam ne ko dama bëgg garab te garab boo xam ne kenn waru ko jaay koo xam ne andiwul ordonnance mu ko. nit ki rafetluwu ko menacé ko saaga ko poñe ko balaa muy woote renfort ndaxate moom commissaire de police la ñëw fekk suñu nawle bi ci pharmacie bi diri ko takkal ko ay munet dog ko yóbbu ci commissariat ñu woote ci guddi gi def pression ci lañ ko doog a bàyyi ci xaaju guddi gi loolu moo waral bi ne woon lii mënuñu ko bàyyi mu jàll parce que dafa ñaaw te ñaaw na ba fi nga xam ne ñaaw fa la war a yem ñu apporter suñu soutien nag ak ñi nga xam ne ñoo suñu collègue yi nga xam ne ñoo dund lu mel noonu ci pharmacie Guidon ak ci pharmacie bi nga xam ne pharmacie Fadilou Mbacké di profiter aussi ci occasion pour woote ci marche dañu dugal demand de marche incha allah des demain au niveau de la préfecture pour que semaine bii di ñëw képp kuy pharmacien ak région boo mën a nekk nga wuy si ndax ñu mën a dénoncer li nga xam ne tey jii moom la jeune pharmacien di dund ci ginnaaw comptoir yi loolu mooy waleelu ndaje bi ñu leen di gërëm di leen